Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. voilà Bour ñu ngi lay seetlu. Cheikh borom Equivox euh, maa ngi lay nuyu. Euh, ñu gis ni làmb ji mën nañoo wax ni bi Covid bi euh, ñëwee làmb ji ba fu muy jeexee làmb yu bari taxawandoo nañu li ñu amul woon ci ay ci ay ci ay ci ay at mu daal di taxaw nan nga gisee loolu. waaw xam nga tamit dafa am lu ci xew loo xam ne. Euh, mbër yi làmb mooy seen métier da xool ñi am te yeneen forme métier tey da ngay gis ci situation bi ñu nekk mooy ku daan jaayee fukk fi juróom ngay jëndee ngay jaayee euh, ñi nga xamante ne que ay boromi séddé yi la ñu daan am salaire cent pour cent tey soixante dix pour cent la ñu am kon donc mbëri yi nga xamante ne que euh, dañu daan bëri ci yenn prix yi promoteurs yi xam nañ ni que situation bi changé na. donc looloo tax komba yi bari parce que yenn combat yi ci yenn somme yu catastrophe wala yenn somme yu faramineux yi mënatu fi am Gaston wax na ko bërki dem li may fay dama koy fay ku bëgg jël ku bëggul bàyyi donc boo xoolee ni daaw bëri woo dem nga saison blanche daaw def saison blanche daaw jéej ren nga nar a defaat saison blanche te amuloo feneen foo ko jëlee donc tu préfères bëre. compréhension lay laaj. non du compréhension situation bu forcé la maanaam maanaam benn situation obligée la dama wax ni. punkal muy entraîné chaque jour amul benn métier bu baree ren balaa bëri diwen mu toog daaw bëriwul daaw jéej ja bëriwul ren bu narte bëri dafay lor boppam lool fa même donc mu neex ak mu naqar dinañ jël cachet yi situation obligée. nan nga gisee euh, Vox Arena ñëw Equivox groupe ñëw euh, avant combat yi sax di wax ñu ne tëgg nañu Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 nan nga gisee affiche sagal ngeen moom xam nga ñun ñu yor site internet dañ jàppoon ne ñu njariñ ci làmb Euh, yàlla def loolu mës a bokk ci samay combat man buur damay wax ni suma ma dem ci télé dem naa bu yàgg mais dama gëm ni que l'avenir de demain ñun sud web bi ñoo ko ci réew mi lañu bokk nu sommes des citoyens modèles comme tout le monde ay nit ñu am ay responsabilité ñu la ñu di ay Sénégal njaay yu way da nga daan gis sax promoteur bi wax daan lan la ma site internet mën a indil ci lam gis nañ ko ba tàyyi waaye yéen a ngi da ngeen kii seen i vues après nangam ak nangam tey bu Vox Arena kon jugee wan leen ni que tey li groupe <laughs> li groupe yu mag yi di def ñun site internet yi mën nañ ko donc voilà donc loolu suñu sag la ñun te c'est un combat boo xamante ni que point com yëpp a ci war a dugal seen loxo parce que li ngeen def yombul sa demande beaucoup de moyens diggante franc ak Tyson 2 mais bés boobu jàppoon nañ ne que jaww si internet mënu ko ah diggante Mama lamin ak ak kii euh, euh, Garga 2 jàppoon nañu si internet mënu ko. jafe yoo xamante ne xamuñu ni sax nan lañ koy pronostiquer. waa xam nga euh, Tyson 2 digganteem ak goor a sok bi paase góor a jàppoon na ni que Tyson 2 newatu fi. Tyson de keroog ñëw indi doole indi fulla indi caractère bu doy waar ci bés boobu keroog tiim naa ko mu ne ma buur gone gi naa naagu ci man mais dana ma kat daan danaa ko daan te lam waxoon def na ko Tyson 2 compétiteur la ku yàgg compétir la tër na fi ay naan ba tey waaye attention ki muy dajal ki muy dajal olympien wax naa ko ba tey olympien la mooy dafa carrière ci lambi simple Franc fekk naa ko Kaolack fekk naa ko Diourbel fekk naa ko ar Adrien Senghor mbapatu jaks ba fekk naa ko fune Franc mu neex naqari day finaalu soit que moog rëg-rëg lay doon wala moog Zambala wala moog ordinateur wala moog ëbbali wala moog Cheikh Tidiane Niane waaye neex naqari Franc day finaalu kooku dama koy wax ni c'est le Ndiago de l'arène bu tàkk la de l'arène Ndiago bu màggee ci biir wolof màggee biir parcelle mën a bari bëri doole lool kon choc la c'est la jeunesse face à l'expérience par comme euh, par franc bëreegul ay combat ci arène bi Tyson Léo ko jiitu moo ko ëpp expérience waaye day xam ni kii bi bëreel xale la boo xam ni euh, tëbul tab bi ci làmb ci mooy dafa carrière ba yegg see fii mu yegg see moo tax choc bi métti. mais tamit kee am fa lam fay am duggaat biir parcelle. waaw xam nga ñam naa ko banaa ko doom fen waaye est dana ñam ñamaat. est-ce que dana ñam ñamaat. fi mu ñam bu doon ñamaat feneen peut-être mën ngaa jàpp ni que mën na ñam ñamaat waaye ci njaago bi lay dal ku wet laajal Saloum Saloum barki dem ba Ndiaye. waaw Mama Lamine nag Mama Lamine ak Garga 2 le retour de Garga 2. Mama Lamine kooku c'est le petit tarkida seetaanal. la Lamine deux ans ci ginnaaw fekk naa ko Rufisque bi muy bëri bébé jul day mu bëri ba pare ma ne kii maa àndaloon maama Lamine mii mu naa ma ne ko mu ngi bëgg changer parce que gëm na ni que am na yoon ci lam am na fit mën na xeex te bëri bi tey na tey animateur la showman la waaye garga de day punkal moo xam ni <laughs> ku ko mës a ameel bor taxaw na ne la ne la fay ma Mama Lamine dafa bëgg a confirmer pour dem gis nga ci li mu jugee euh, bërki dem boo njaay ci digganteem ak Jokal bëre bu rëy ba mu fa bëre donc ñëw dalaat ci Garga 2 te Garga 2 moom tamit ay ay moromam xaw koo raw tuuti mu war a fëqal daw dabiwaat leen. waaw moom laa la wax moo tax man la ay moromam dañ koo raw mu bëgg a fëq daw dabi leen. donc Garga 2 a l'obligation de battre Mama waaw mais est-ce que il va battre Mama Lamine. maam Mama ku ko ñemewul ci xel. mënoo ko daan ndax paddkatu maayen la. bandi maayen la xam ngeen li may wax. esaan Mama Lamine signature de contrat dina la ruube ci communication. dana la ruube ci ambiance. ba boo moytuwulee dina la déconcentré ba passé loola a côté de tes objectifs. moo tax ma ni Equivox li ngeen def sagal ngeen làmb sagal ngeen point com yeeg site internet yi ren nag c'est le déclin ndax ñun site yi dañu war a wane suñu bopp nag lan la ñu mën tey ci wàllu solidarité ndax boobu ba tey lu ñuy xasee àndu leen bokk leen nekku leen benn ren la ñuy weddi tuuma boobu teg fële danañu ànd ak yéen ci préparation yi ànd ak yéen ci entraînement yi ànd ak yéen ci open press yi ànd ak yéen ci face to face yi ba jour bi ñun waa point comme yëpp ñëw fekk si leen stade huit heures ci suba jàppal leen ci organisation bi fanaanoo ko ak yéen dem jëli mbër yi indi leen stade bu ñu noppee ñun point comme yi ànd ak mbër yi delloo leen seeni kër lii la def ndax mbokk ndey koy jur. delloo ziar Cheikh Omar. naka naka naka làmb ci. ah dafa mel ni neex na de man de instant bi damaa mais li ma jaaxal mooy dafa mel ni. gars yi dañoo ñëw ak doole déwén dafa mel ni gars dañoo bëgg a dekkilaat làmb jamono 2010 jamono 2011 dafa mel ni loolu la gars yi bëgg a indiwaat. loolu lañ bëggaat Cheikh Omar te Olam Ndiaye doom sax ci coon la bokk te Equivox nekk seen seen YouTube ñoo tamit bokk ci xeex bi ndax yaakaar naa ni mbir moom boo ci nekkee loo ci mën danga ko ci def mënoon ngeen fi nekk def comme ñun def comme yeneen sites yi di wut ay ay interview di dem ci yeneen événement yi mais defu ko da ngeen organiser seen bopp seeni combat fekk xale yi nga xamante bokk nañ ci meilleur espoir yi ngeen jox leen avance kon dafa mel ni da ngeen a da ngeen a delloo mbàtt ci ndaala rek comme ni koy euh, wax mais combat yooyu nan nga ko gisee déjà combat bi nga xamante ne euh, mooy Franc ak Tyson 2 moom la ñu njëkk a boo koy sama boobu mooy sama combat nag pour saison deux mille deux vingt deux mille vingt et moo tax. parce que dañ ko jox ay adversaire heure bu signé. ñu ne ko yaa ki ngay bëreel mu signé nag combat boo xamante ne dañ Franc nag lii mooy vrai test pour moom parce que ku muy bëreel sadik la xàmmewul janj ak joor deux défaites la am bi mu duggee ci làmb ak léegi guy gi moo ko daan combat ak Elton gis ngeen ni mu demee dina poids bu ëpp moo doon def action fekk ku ko gën a diis koo xamante ne moom tamit moo gën a jafee ci daan ci làmb ji kooku daan ko deux yooyu la am Franc musul am adversaire bu mel ni Tyson 2 peut être Tyson 2 sax bëri na ak adversaire yoo xamante ne peut être ñoo gën a fort Franc waaye ak lu mën a xaw daal mooy sama combat pour saison bi ñu dëg man nee nañu Franc mosagul xeex ci làmb day ñëw rek arbitre muy wër jàpp Tyson 2 booy bëreek moom da lay dóor jëm laa perturbé daan la. xeex ak Franc sax du yomb ci ci Tyson 2 Tyson 2 moom bis bu demee bay xeex ak na fexe ba ku bu mu koy dóor rek na ko dal sinon bu ko bu koy wër ndoom sax du ko du ko dafa am doole xale bu ndaw la mbër yi presque presque ñëpp ko mag ñi mu tolloo génération ñëpp ko mag xale bu ndaw la parce que booy xool image yi nga xamante ne temps yi ñu ngi koy génne ci groupe whatsapp yi sur combat Garga Mbossé mu nekk ci tribune bi di supporter nii la toll booy bu ndaw la xale bu ndaw la am na doole comme mag yi ni ñu amee doole waaye ak lu mën a xew daal mbër lay taseel de ci Tyson 2 moo mën a bëre. kon combat amul favori. Tyson dama doon nekk Pikine naan Valdo moo ko dàq bëre. fu ma ko wax ñu ne ma ubal sa gémmiñ bul ko waxati xam nga Pikine laa yaroo fu ma ko wax ñu ne ma tëjël sa gémmiñ parce que Valdo dama ko doon seetaan contact mu mën a bëre trop mais bi bi ma gisee Tyson 2 di bëree bëree dernier combat bi ma ne kii kay lu ñu ci moom nekk sa ma dar sama gémmiñ day bëree tànk day bëree loxo waaye Franc xale la de moo ma mais Garga 2 ak ki nga xamante ne mooy Mama Lamine gone Lansar gi. test bu rëy ci moom test bu ci Mama Lamine. ñi mu doon bëreel wuute na trop ak Garga 2 nañ ko waxtaanee parce que mënuñu mbëri am combat ñu nekk fi naan ay amul lii léegi laa di bañ ko ñu mere mm-hmm. Mama Lamine ci boppam xam na ne am na ki barki démb laa jógee kër da mu ne ma sama combat boobu noo gis ma ne ko am ngeen komba de mm-hmm. ki ngeen di bëreel man naa bëre am na doole gaaw na mu ne ma waaye Mama Lamine bëre bi mu bëre mën na ci ub làmb ndax day xeex di songu man nag maa ko tuddee borom dóor songu xeexul day naxe day songu Mama Lamine tamit mu lay sànni da lay songu. day songu de ñim songu ñëpp nag da leen daan looloo ma yem waaye ci Garga 2. mais Garga 2 nee na ma du ko xaar. du xar du xaar Mama Lamine. pour mu songu ko kon dañuy daje. dañuy daje combat bu gaaw kon lay doon ñaar ñu gaaw lañ Mama Lamine daal na liggéey doole ci combat bi. Mhm. combat moom doole kese la ci war a liggéey doole bu wóor parce que damay xalaat ne instant bi moom kii moo xaw bu ëpp doole Garga Pape Thialis ñëw daal di dabali moom it indil ñu ki nga xamante ne moom mooy Tafatine ak euh, voilà euh, laaj euh, Boy Niang. Boy Niang xam nga wax na fi sànq ni damay waxtaan ak presse bi comme ñëpp ñoo ngi fi. parce que bëgguma ñu jàpp ne man waa géej waaye kese laa laa war a bëreel bëgg-bëggam Balla Gaye numéro 2 la woon. que wax ñu lii wala mu ñàkk ñu ko wax bëgg-bëggam Balla Gaye numéro 2 la woon. parce que estafam demoon nañ ba benn instant ñu foog ne. Gaston day teg xel rek da leen di teg pression pour ñu jël cachet bi nga xamante ni moom la leen proposé parce que gis nañ Mansour Diop numéro en mu def benn sortie ci sunu làmb mu ni kenn mënuñoo mënuñoo teg xel quatre-vingts millions ou rien bu combat bi demee ba gis ni wóor na leen ne Gris jël na avance ñu obligé jël Tapha Tine mais nag combat la hmm. combat la ku ci nekk ci ñoom ñaar mën ngaa daan sa morom. Boy Niang lu ko arrangé ci ci ci ci combat bi xam nga Boy Niang gaaw na mooy fexe songu ji Tapha Tine. balaa Tapha Tine wu ci kawam. parce que Tapha Tine bu nekkee di benn bennal ak moom fii ba suba mën na am lu ko daan mais fexe bëri ji ci kaw Tapha loolu moo ko ci génnee. Tapha nag lan moo ko ci mën a génne combat bi jàpp ba mu dëgër. palaakeem yooyu mu doon daane kii yi mu doon daane cek daane ko Abdou Diouf mën na ko am ndam ci combat bi mais Boy ñaa bu njëkk ba hmm. bi daan songu ay tànk bu songee Tapha Tine tamit mën na am ndam ci combat bi. loolu laa gis ci combat boobu. mu daal indi Garga aussi ak ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès. mu ni Sa Thiès bi ñu koy jox Lac Rose loolu avance am la woon bi koy jox Jordan avance la woon bi ñu koy jox Nees avance am la woon bi ci combat am ak Malick Niang su neen avance la woon ma dem laaj loolu Sa Thiès mu ne ma loolu mu wax amul ñoo bokk saal. yor naa ay vidéo vidéo yi sax foog ma lijjanti ji ko <laughs> nee na yoo xamante ne garga da doon squat bu squat mënu squat sax plus de cent kilos garga weddi na loolu nee na ñoom ñaar du compétition ci côté musculation ñoom ñaar du compétition waaye bis bu combat bi taxawee nee na nañ ko taalal caméra yi ñoom ñaar bu leen neexee ñu samp squat cousé yow yaa ma gën a xam sax yooyu squat cousé biceps rek laa ci xam ak poli nee na daal bu ko neexee ñu dem ci loolu avant ñu bëre waaye combat bu neex a neex la mm. combat yomba jaay la combat bi tamit bu yomba jaay la mais Leewtoo il faut ñu def ci liggéey bu wuute ak yi ñu doon def. waaw parce que ba seen saison bi nga xamante ne dañoo tëgg 2017 2018 daw liggéey bi desoon na kon liggéey bi foog ñu xoolaat ko parce que làmb la rek. communication la rek. bu ñu fi nekk di sonal site internet yi naan ay site internet dañoo bari làmb bu fi jar site internet yi ñoo la jaay. Balla Gaye Gris Bordeaux site internet ñoo ko jaay. Gris 2 Reug Reug demoon na ba Modou Lo Eumeu Sène feeñatul site internet yi ñoo ko jaay combat yi fi am daaw da nga gis booy boo xamante ne waru bëre grand combat sax mais da nga def sa face à face nga def sa open press site internet yëpp ñëw teew fa télé yi na ko ba léegi liggéeyatul da ngay signé benn télé doo leen gis kon nañ jox cër sit internet yi te mu dem fexee gis site internet yi nga xamante ni wóolu na leen ñu mën a liggéey ak ñoom moo xam Equivox la moo xam Bawol TV la moo xam Lutte TV la moo xam bu mu mënti doon nañ dem fexe liggéey ak ñooñu seeni combat jar ko defee nag mu neex te yëngu man daal bëgg naa combat yi. bële yaa ay direct gisee tey jotaay bi. jotaay bi ah nice. waaw loolu xam nga ne mu ngi mel ni waa Equivox rek ni ngeen dikkee ci làmb ji mu neex lool. Pape dafa ñëw gën a sàppali. xam moom macha allah def ngeen fii lu nice daal lu àdduna rafet rafetlu. xam nga làmb dafa neex te ñëpp euh, kontaan ngeen tëgg lan Mama Garga 2 mu nekkoon lu jafe lu naqaree taxawal yéen ñii da gën a garaaw <laughs> ngeen dugal Franc maa ngi ñëw Franc Tyson 2 loolu xam nga loolu dafa fees ñu ne déetawaay Pape Thialis ñëw indi Tapha booy Boy Niang ñu foog ne jeex na mu indi Garga Mbossé Sa Thiès waa lii tamit lii lii lii lii est-ce que dina jur jàmm. lamb ji jeex na. ah lamb ji jeex na. non am na yeneen yu war a ñëw bu ko jeexal gars yi dañ <laughs>